على ثغالي بفروج وسنن شكرتها لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتخلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني في waaye nee na siyaare bi nag li ñu ci gën a yitteel mooy seenu ñaan xam nañ xam nañ seen maam lim jële woon ci Serigne Touba. xam nañ seen maam lim jële ci Serigne Touba. kon nag bu taxawalee bis bu mel nii. kon seen maam bu taxawalee bis bu mel nii. yéen ngeen yor ko. ne ci ginnaawam. te mel ni ngeen mel yéen. te mel ni ngeen mel yéen. lu ngeen ñaan ci bis bi rek. yàlla dana ci ànd ak yéen. ngeen ñu moo tax na ngeen ñu ñaanal. te ñaanal réew mépp lu ngeen ñaan tey rek. yàlla dana leen ko defal. bis bi tol na ni. yéen ñi yor bis bi toll ngeen ni. jërë ngeen jëf. sëriñ bi ne. nee na mi ngi siyaare tey ñaan ngeen yàgg ko taxaw. jërëjëf. Serigne Bassirou nee na mu ngi nuyu Serigne bi. nee di nuyu Serigne Cheikh Abdou. xanaa day mel ni rek day mel ne publicité lay doon. Serigne bi nee na day mel ni publicité rek lay doon. damaa juboo ak Serigne Bassirou Anta Niang mi borom daaru. nee ndax dafa juboo ak Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom daaru. ma ñëw siyaare ci suba gi. nee ma ñëw siyaare ci suba gi. Serigne Mahfous. Serigne nee. daarul karim waa kër sëriñ Modou Fati Xari ak waa kër sëriñ Massamba ñëw fii ci sëriñ Cheikh Abdou nag su ngoonee ne su ngoonee ñu tànnaat ci njaboot gi ñu tànnaat ci njaboot gi ñoo xam ni ñoo xam ni Mahmadan moom sëriñ ba siiru Niang moo koy jiite Mahmadan moom sëriñ Bassirou Anta Niang moo koy jiite ne gisoon nañ ko ci appel bi nee bu dikkee mu dikk teewaat fi ci li des ci ngoon gi waaye nag euh, tombe day waral ay gaaf. nee tombe day waral ay gaaf. waaye day waral rafet gaaf. waaye day waral rafet gaaf. gii gaaf nee gii gaaf nag dafa rafet. ñaari leeri Serigne Fallou seetlu nee ñaari leeri Serigne Fallou seet na ko ci jataay bi. ca guddi gi ca guddi gi. E, ak Cheikh Modou Fadal. ak Cheikh Modou Fadal. dañoo jaxasoo bay benn. danoo jaxasoo bay benn. dafa am menn mbokk mu nee dafa am menn mbokk mu baax. day wax ni day wax ni. Eh, suñ a wax. nee suñ ko mënoon a wax. dañuy wax virus bi ci Serigne Touba. nee virus bi ci Serigne Touba. ku ko xeeb dalaa laalut fenn. ku ko xeeb dalaa laalut su fekkee mën nañ ko waxee noonu. su fekkee mënees na ko waxee noonu. ma ne ko danga ma ciy jox misaal. Serigne bi ne ko danga ma ciy jox misaal. mu ne dangay seet Amadou Mokhtar Mbow. mu ne ko dangay xool Amadou Mokhtar Mbow. ba muy eh, ànd ak soxna May. ba muy ànd ak soxna May. di ko yóbbu ci otoom. di ko yóbbu ci otoom. ci Cheikh Mamadou Fadal. ci Cheikh ngir ngir ngir euh, laylatul xadar gi. ngir laylatul xadar gi. lañ doon yóbbu. ne lan doon yóbbu. muy muy lu yama yam. muy lu yama yam. moom moomee ko doon yóbbu. moom moomee ko doon boo xoolee fi mu jaar. soo xoolee fi mu jaar. ci ci ci gouvernement ci gouvernement Sénégal. ba ni mu demee bitim réew. ba ni mu demee bitim réew. ba tey jii. yàlla di ko defal teraanga. yàlla di ko defal teraanga. ku xeeb li bàyyi ko ci sëriñ bi bàyyi ko ci sëriñ bi. nee da nga koo mosul rek. waaye ku ko mos. waaye ku ko mos. wala nga gis ku ko wala nga gis ku ko mos. doo ko werante kon nag kon nag. dañuy ñaan yàlla sunu borom. noonu ñu ko tàmbalee woon ci Cheikh Mamadou Fadal. sëriñ bii moom. doon suñu lépp loo xam ne. doon suñu lépp loo xam ne. yàgg na lool ci fii ñu toog. te lépp di rafet. am na ci loo xam ne duñ ko wax. waaye dañ koo dund. ñu gën cee yokk mbégte ci loolu. ñu gën cee yokk mbégte ci loolu. wane ne kon Cheikh Mamadou Fadal. wane ne ni Cheikh Mamadou Fadal. ak soxna Maymuna. ak soxna Maymuna. kon teewaat nañ ci jotaay teewaat nañ ci jataay bi nag. kon mën nañoo am yaakaar kon mën nañoo am yaakaar bu baax a baax. li sëriñ bi wax li sëriñ bi wax. sëriñ Abdul Karim moom sëriñ Abdul Karim. ne nañu ñaan bu baax te ñaanal réew mi. nii nanu ñaan bu baax te ñaanal réew mi. loolu mooy waxi borom xam-xam. nee loolu mooy waxi borom xam-xam nag. mooy waxi nitug yàlla. mooy waxi nitug yàlla. sa bopp moom dafa yomb. nee sa bopp moom dafa yomb. waaye li ñëpp bokk. waaye li ñëpp bokk. def ci wax ci def ci wax ci. nee looloo jafe. ka topp ay nagam ca àll ba. ka topp ay nagam ca àll ba. boppam danga ko ca bàyyi. kon sëriñ bi ñaan gi. kon sëriñ bi ñaan gi. na ko yàlla nangul. ci darajay Cheikh Mouhamadoul Fadal. ak soxna May Muna. ñi nga xam ne ñoo ko seqoon. yàlla may ñu ñu fekk ko at yu bari. te yàlla. yàlla wéral cër yi sàmm ñëpp nee ku fi indi jàngoro sunu borom faj ko ku fi indi aajo yal na ko sunu borom faj nee sunu borom nag day koo xam ne loo ko yen attan na ko kon nan ko yen li ñu bëgg lépp jox li moom lépp laaj ko li ñu bëgg lépp jërëjëf sëriñ Cheikh Abdou sama rak di sama jaam di sama xarit Cheikh Abdoul Ahad nee di siyaar sunu waajur Baye Abdou Karim nee di ko nuyu bu baax itam di nuyu sëriñ Bassirou Mbackeem Cheikh Abdoul Khoudous moom mi nga xam ni moo yore kaddu Daarul Khoudous Daarul Muxti di nuyu Baye sëriñ moom Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Ax moom sëñ Modou Moussa Diang ak sëriñ Abdou Aziz mii nga xam ne doomam la ak ñin fi fekk ñëpp ne kaddu yi di kaddu yi cant ak ngërëm yu jóge ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad jëm ci mbokk yi ñii di ay ndijaayam ñii di waajur ci moom tàmbalee ci alaaji maam Cerno mi fi bàyyi ko léegi ndax bis bi dafa rëy lool ndax soxna may muna moom moo ko sosoon de ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Fadal ibnu Xaadim Rasul ne doon ko taxaw taxaw bu rafet ba bàyyi koo fi soxna Baali doon ko taxaw ne moom it loolu lépp yokku ci ak nekkam ba yàlla dogal mu bàyyi koo fi bàyyi fi sëñ Abdou Lahad ak soxna Assu nee lépp luñ fi bàyyi woon ñu téye ko sàmm ko ba bis bii ku fi ñëw di nga xam ne yokku na kon nag loolu su amee Cheikh Abdoul Karim moom Cheikh Modou Fadal fekke ko Cheikh Modou Fadal moo def loolu lépp ndax moo ci ñaanoon ca ginnaaw ya kon jataay bi su amee ngeen ñëw fi ànd koog moom ñu ngi sant yàlla di dalal xel di xam ne moom wéetul wettali ngeen ko te ngeen ko sagal ngeen ko ndax moom wax na ma léegi ni baas yi fi am lépp nee sëñ Abdou Karim a ko fi def ak yeneen yoo xam ne sab taxawaay la nee noonu la bokk yu bari taxawe ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yónnee na fi teraanga yu bari ñooñ ñëpp nag noonu lan def nee ak sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad ak ndijaayam yëpp ak waajuram yëpp nee loolu nag day wane ne xelam dal na ndax ndax moom yomb na jomm na yomb na ko ngeen ko di ko jëfal wala ngeen yónnee ci moom kon loolu dafa dalal xelam bu baax waaye liñ lay wax rek sëriñ Abdou bokk yëpp am ci yow mbégte ñëpp a sant ñëpp la gërëm li sëriñ Abdou Karim wax léegi fi nga war a nekk yaa ngi fi. yoon wi nga war a nekk yaa ngi ci aw moo tax lii lépp am kon dalal sa xel bu baax lex am solo moom xam nga ko mooy xam sa bopp xam fi la yàlla boole xam li la sun borom defal ca xam nga ko yaa ngi koy doxe sëñ Abdou Karim nag nee na li mu wax léegi ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal itam ni ko bëggee rek sun borom defeel ko noonu ne xam na ñaar yi nga jël ci Cheikh Mamadou Fadal wala ñett muy ak taalibe ak tabe ak oyof nee loolu jël nga ko ci sëñ Fallou ñoo ngi lay sant bu baax Mbàkke la wax rek ci guddi gi salaamun hiya hatta man layil fajri jàmm jooju nga xam ne malaaka yi ñoo koy indi ànd ak Seydina Jibril di saafonteeg jaam ñi ba fajar yàlla jàmm jooju yàlla sax fépp ci àdduna bi yëpp rawatina réew mi nga xam ne ab xeex ab xeex am na fa fu mel ni Ukraine ak Bisri ak Russie ne ba mu gàllankoor lu bari ñu ngi ñaan ci barkeb guddi gi barkeb soxna May mun a mu yem foofa barke sëñ Touba. ñaanal ko Mbacke macha allah muy yëg sa buri sëñ Mbacke maaram yàlla na ko fi yàgg ñëpp lay safoo ñëpp lay bëgge ci sori yoon wi waaye yoon wi min nag at mu jot nii ngay def